ñaata ndongo daara ñoo ci participer ci lii ñuy tuddee final bi tey mooy mat nañ fanweer ak ñeent départ ba ëppoon na loolu waaye fanweer ak ñeent ñoom ñooy ñi nga xam ni ñoo participer ñaari ñi nag euh, di waa étranger ndax xam nga bu ñu waxee international keroog ba ñuy lancé fii le 29 janvier dañoo waxoon ni c'est une concours international waaye nag comme dañuy door a tàmbali te képp kuy jóge bitim réew di ci ñëw prise en charge bi. grand prix bi moo koy yore ndax koo xam Touba xam sëñ Touba xam ni euh, teraangaam da koy yaatal jëmee ko ci ñëpp moo waraloon ñu ni kon ki nga xam ne da ciy participer au niveau international même au niveau national dafay doon koo xam ne grand prix bi moo lay jël en moo waraloon ñu ni comme ab début la te xamaguñ nu muy demee ñu jël ñaari réew benn bi réew bi mooy Mauritanie nekk ci suñu wàcc beneen réew bi muy Burkina Faso su ko defee loolu dafay symboliser euh, maanaam Afrique euh, arabe bi. ba waaye it Afrique bu ñuul bi ndax loolu lépp ci ci ñoo bokk Afrique waaye ñoo bokk bitim réew ndax boo xasee ni boo xasee génn réew mi rek lu génn réew mi bitim réew lañ koy tuddee ak donte su régional lañ koy wax waaye dañoo bëgg a tendre vers maanaam euh, ci penku bi ak ci yeneen réew yi gën a sori yëpp ci lañ bokk fu jullit nekk tey jàng alxuraanul karim fas yéene nañ incha allahu taala par étape ñu di leen invité ñu di ci ñëw moo tax kon ñaari candidat yi Mauritanie la. ak Burkina Faso xam naa dangeen leen gis bu ngeen suivre concours bi ndax xam nga concours bi ñetti fani alxuraan la te it euh, dañ ko inscrire ci programme mu maanaam màggalu Touba ci njëlbeen bi dégg ngeen ni ko sëñ Bassirou Mbacke euh, annoncé woon ci bi muy def CRD er bi waaye dégg ngeen bi muy def déclaration ni mu ko annoncé woon noonu rek la mooy lan yëngutub alxuraan la di ñetti fan yoo xam ni dañ koy def jàng alxuraanul karim ñaari fan yi mooy tey mooy premier jour bi ñuy remercier bu baax sëriñ Euh, Ahmad Badawi moom Cheikh Mouhamadou Al Fat ci teewaayam bu rafet ndax buñ ko déggee rek biñ ko sàkkoo ci moom dafa ñëw teew waaye di remercier bu baax Serigne Cheikh Lappe moom itam ci teewaayam bu rafet biñ ko sa biñ ko sàkkoo ci moom dafa daal di ñëw ngir teewal Serigne Mouhamadou Mountakha waaye di remercier bu baax Serigne Cheikh Abdou Bali ci teewaayam bu rafet ngir ñëw représenté lépp luy màggal gi ak Cheikh Mouhamadou Bachir rek famille bi yëpp waaye it di remercier bu baax Cheikh Mouhamadou Xabbaan moom mi nga xam ne liggéey bi ci ronam lañ koy defee ndax liggéeyal sañ Touba ci Touba lépp dañ ko organiser te ku ne xam na ni wàllu njàngum alxuraan bi moom moo ko jiite moo tax duñ def dara luñ yëgoowut ak moom bi nga xamee ne nekk na ci it yu jàmp it yow na na fi Cheikh Ibrahima si gis ngeen ouverture bi sax moom moo ko def ndax lan loolu moo war a am ndax liggéey bépp ci loxoom la tegu kon daal 34 candidats incha allahu taala ñoom la ñu départagé tey mu nekk nag ci ñetti faron mooy ñetti bànqaas bànqaasu mokk alxuraan man koo firi nga xam ni da nga koy mokkal man ko firi gis ngeen yenn seetaanal seen bopp loolu en la waaye mokkal alxuraan ba noppi mokkal ko mokkati mu rafet waaye mënoo ko firi boobu gis ngeen ko boobu egseegul tey feeñagul waaye bi mu jëgul ngeen ñu nekk ci ni bi bële jàllee bee moom jeex na waaye ñu ngi ci deuxième bi mooy mokkal alxuraan te mokkaloo alxuraan waaye jàng nga ci lu mu gàtt gàtt fukki si muy xale yi ngir ñoom it ñu mën leen ko encouragé nga xam ne kon concours bi dafay mel ni maanaam ñetti pàcc la maanaam liñ naan wenn se wenn xeer nga am ci ñetti picc waaw all in one daal moom la maanaam benn nga man ci am lépp daanaka mooy ñi nekk ci kaw ak ñi ne ci digg bi ak ñi tàmm door a tàmbali moo waral kon tey ñi ngi ci deux premier jour ouverture bi fi mu ne nii ñi nekk ci tafsir bi jàll nañ juróomi candidat lañ ñeneen ñi ci topp ñi ngi ñëw xëy na détails yi sëñ Mamoun bu ñëwee moom mi ci waa lañu sax kii moom membre jury bi dana leen ko gën a leeral. xayma yi nag ni muy demee mooy jury bu nekk. ñett ñetti euh, jàngkat ñetti nit ñoo koy ñoo koy ñoo formé ñett ñooñ ñëpp seenuk fànn day aju ci alquran loolu mooy doon seen spécialité nekk la nga xam ne moom lañ xam bu baax a baax jury bu njëkk bi euh, man maa ci nekkoon ak euh, ku ñuy wax Abdul Qadir gay ak keneen koo xam ni mooy kii ja Khadim Dia Serigne Khadim Dia eh, Serigne Khadim Dia moom mi ngi nekk université bu Médine eh, faculté alquranul karim Serigne Djili Gaye moom it université bu Médine la jàng faculté alquranul karim moom it fa la génn faculté alquran ñoom dañuy jàng lu waaju ci wàllu njànguma alquran ak lu jëm ci wàllu eh, tafsir ko su dee man it man ma université bu Médine la jàng mais nag jurisprudence laa def donte alxuraan bokkoon na ci matière yi nga xam ni ak tafsir alxuraan bokk na ci li nga xam ne moom la ñu fay jàngit kon jury bu njëkk bi eh, ñoom ñoo jàll xayma yi comme xayma yëpp rek ñenn ñu nekk dañuy may ay points am na ay critères yoo xam ne moom la ñuy teg moom lañ teg eh, cent points lay doon su ko defee xale bi ñu xool eh, ci laaj yi ñu koy laaj moom ñaata la ciy mën a am laaj yooyu nag am na yu bari yu ñuy xool ci biir yoo xam ni moom dafa dafa màcc ci spécialité bi neexut a détaillé lool lu jëm ci wàllu dem lu jëm ci wàllu ni muy tafsir alquran lu jëm ci wàllu mokkal gi eh, lu jëm ci wàllu xamit baat yi alquran yi lan lay firi lenn lu ci nekk am na ay points yuñ ko jagleel su ko defee kenn ku nekk su ko mayee ba pare ñu comparer ñett yi xool eh, ban point mooy bi nga xam ne moom la am ci 100 yi Euh, noonu la ñuy def ñëpp su ko defee suñ paree nag doo doo ko vérifier xool ba xam kan moo ci jiitu ñu ni kooku moo jiitu ci fànn googu su dee beneen fànn gi nga xam ne mooy am te nii moo di ni dañuy boole ci concours bi bu liñ tàmmoon ci concours mooy ku mokkal alxuraan rek waaye alxuraan lu ci waaye xam rek warees na koo jox xiima warees na jàpp ni kii kat donte benn saar la mokkal ah loolee mu mokkal lu rey la euh, moo tax ñooñu ñu boole leen ci ngir gën leen a encouragé ñoom fukki isib yu mujj yi ci lañ leen di saytu moom it kenn ku nekk dañu lay laaj ñetti laaj laaj bu nekk 30 points lay doon ak beneen 10 points yoo xam dañ ci xool moom ni muy ni muy jàngee ak kaddu gi ni muy jooxee est-ce que euh, aw na yoon wala déet su ko defee loolu mooy doon 10 points yi ñoomit it ñe bi ñëpp dañuy nekk ñoo xam ni am nañ ay ijaaza mooy am nañ ay ay qualification ci njàngum alquran karim su ko defee ñooñu moom la ñuy tànn mooy jury bi nga xam ne ñoo toogoon léegi beneen jury bi nga xam ne moo war a ñëwaat suba sëñ Bachirou Sakho mi nga xam ne moom moo jiite sax euh, euh, moo jiite sax lañuy ñuy tuddee jury bi jury ñun ñëpp moo ñu jiite ak sëriñ Xaadi Jaxate mi nga xam ne moom moo moo ci moo moo moo ko jiitu moom it moo sëñ Bas topp ci ñoom suba suba sëriñ Bas dana ñëw ak euh, ak ñeneen ñaar ñoo xam ne ñoomit it seen spécialité ci wàllu googu lay doon ñoom it ñi nga xam ne dañoo mokkal alxuraan lépp te àndut ak firi concours yu mel noonu nag moo fi gënoon a bari ñaari faron boobu mooy bi nga xam ne moom naka jekk daana am ci réew mi moom it ñu boole ko ci ñoom it incha allah suba danañ leen saytu ba xam seenu mokkal nu muy demee su ko defee jury bu nekk ña jiitu nag ñooñu la ñuy tànn su ko defee defal leen ay neexal eh, waaye daal su dee ci wàllu liggéey bi ci wàllu transparence bi ak ci wàllu eh, doxaliinu liggéey bi loolu lépp bind nañ ko candidat yi xam nañ ko ñi nga xam ne ñoo leen indi di leen eh, di seeni sëriñ daara it ñoom xam nañ ko critères yi nga xam ne ci lañ leen di natte it moom leer na naañ ni ñuy séddalee points yi loolu lépp leer na te it bind nañ ko eh, jox leen ko muy ay kayit yoo xam ne ci lañ baaxoo sukkandiku ñun ak ñiy jàng ñun ak ñi nga xam ne ñooy seeni sëriñ daara eh, xam nañ naka lañ koy doxale suñ noppee it vérification bu final bi it dañ koy daal def suñ baree ba dugal ko ci ordinateur beeg lépp jury bi day dajawaat xool ba xam ñoom li ñu bindoon ak li ñu dugal ci ordinateur yi ndax moo ànd wala déet suñ demee nag ba lépp ànd ba jury bi saytu ko ba xam ne résultat yi mooy yim joxe woon su ko defee ñu doog ko valider ñu doog a génne résultat yooyu.